ñaari soldaar yu xariñ lañu dénk bërëb yi nga xam ne ni yu am solo la ci wàllu kaaraange Sénégal ki nga xam ne ni moom mooy jëwriñ bu yor wàllu armée bi nag moom ab général corps aérien la moom nag jiitoon na fi sax li nga xam ne moom mooy armée bi fii ci Sénégal moom nag am na ay diplôme yu mucc ayib ci wàllu ingénierie aéronautique waaye tamit lu ñu duppee transport pilote moom tamit jàngee na fi nga xam ne ni moom mooy école d'état-major bu nekk ci États-Unis moy ko xam ne nii ku xarañ la ci wàllu armée bi général corps aérien Birame Diop nag mën nañu wan sa bépp poste boo xam ne nii officier war na ko am ci wàllu armée de l'air moom am na ko ci bitim réew nag moom amal na fa ay mission yu mucc ayib bokk na ci wutum jàmm bi nga xam ne waa ONU dañ koy faral di def moom sax amal na li ni mel fi nga xam ni moom mooy Congo muy koo xam ne nii def na lu ëpp fanweeri ci wàllu armée bi muy soldat boo xam ne nii amaloon na liggéey bu am solo ginnaaw mu jiitee militaire yi bi muy yor armée bi nag indiwoon na ay coppite yu am solo bokk na ci defaraat dëkkuwaayu soldat yi defaraat ko waaye tamit jox leen jumtukaay yu mucc ayib yoo xam ne nii dinañ mën a amal seen liggéey ci anam mucc ayib moom nag daana bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne nii dañu duppee woon militaire du rang moom da xool seen dëkkin waaye tamit seen nekkin indi na ci coppite yu am solo yoo xam ne nii ñoom ñëpp ko rafetlu